Ousmane Sonko dañu ko yóbbu ci prison bu Cap Manuel loolee lañuy xabaar ay waxtu gi nii ci xaral yu yees yi di mbir mi nga xam ne ki ci njëkk addu di benn ab bu Pastef ñu bëri ci suñu ay naataangoo bindaat ko mu nekk ay kàddu yoo xam ne El Malick dëggal na ko secrétaire national bu yor wàllum communication bu Pastef nag moom gën ko yaatal jaarale ko ci page Facebook am ne daal Ousmane Sonko dañu ko yóbbu ca Cap la daal di cay dolli ne ak fu ñu ko mënti yóbbu lenn daal mu wóor Ousmane Sonko mooy candidat wi ëpp dayoo ci jongante ñi réew atum 2024 jàpp ne anam yi ñu ko tegee loxo daal jaarul yoon dañoo salfaañe ak yelleefam loolee la bind naka noonee mu àddu ne secrétaire général bi ak Ousmane Sonko yëpp ña nga ca Cap Manuel ba jamonoy tey nag amagul benn bataaxal wu tukkee ci kilifa yi di dëggal wala déet yooyu la kàddu nga xam ne jib na waaye ba tey ci lu soxol maire bu Ziguinchor fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi di aljuma nekk na bés wu ñëpp di xaar rawatina ñuy farek moom ndax ca bés boobee cour suprême dina joxe ndogalam ginnaaw ba agent judiciaire de l'État jibbeli ab bataaxal ngir kalaame atte wi nga xam ne defoon nañ ko ca tribunal bu Ziguinchor Ziguinchor sàkk woon ci Ousmane Sonko ñu mën ko dugalaat ci liste électorale yi waaye jàpp leen ne ci bés boobee ba tey cour de justice bu CEDEAO ginnaaw càmbar gi nga xam ne defoon na ko